muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonante sant ko tedd ki ñu ngi jéggalu képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah heure bi ñuy àddoo nag xëy na waxtu yu sore na lool waaye dañoo mënta gëmm bët ndax dañoo gis benn image bu doy waar lool ñu jëme ko ci téere bi nga xam ni mooy kitaabun karimun min karimin mukarramin mooy téere bi nga xam ne mooy xaritub sëriñ Tuubaa ba ak soppeem ba mooy téere bi nga xam ni mooy àtte dundub jullit ñépp ak kudub jullit mooy téere bi nga xam ni mooy leeru àddina ak gu àllaaxira mooy alquraan al karim di téereb jullit ñi di téere bu tedd boo xam ni kenn du ko laal sax te àndul akum jàpp téere boobee lañu dégg benn as ngóor ndax alquran yenn kàddu yi ku ko ci wax kenn waratu laa jox tur ba am valeur waaye benn ngóor su sant siise wax ci wax joo xam ni <clears throat> léegi laa jot vidéo bi waaye maa ngi tuubal sama boroom dégg gi ay waay man raa minkum munkiran day fal yugayyirhu bi yadihi bi yadihi état rek moo ko mën nañ ci jàppale ci ngóor si nit ñaa ngi tabax mi ngi màbb nit ñaa ngi defar kilifa yaa ngi defar mi ngi yàq moo réew mu Sëriñ tubaa tëdd réew mu Sidi Alhaji tëdd réew mu gaa yi baax yi tëdd ak li ci ay wàlliw naka la fa ab sénégalais bu soqeekoo ci ñoom di seen mbokk mën a waxe wax ju réy nii alquran al karim di continuer di fonctionner di dox loolu de lu dis la lu metti la ay waay lu ne mën nañ koy wax waaye téereb sunu borom bi de ku ko ku ko offensé danga offensé jullit ñépp sëriñ bi wax lii na yëg ni ba fii ñuy àddoo bokkatut ci islaam lu dul ni daa tuub dellu gannaaw ci lim waxoon sunu borom nag la offensé subhanahu wa ndokk nag ba nga xamee ni inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi waaye wa yaxfiru ma duna dalika liman isha ndokk it ba nga xamee ni képp ku jéggulu yàlla tuubal ko suñ boroom nangul la tuub googee ba tax ulamaa yi ni bu la war na rey tey day di nga am sansub boo tuubee rek jees ji dellu ginnaaw waaye dugg nga fu xat wax nga lu diis wax nga lu metti wax nga lu ñaaw wax nga lu rëy tooñ nga ñu bari ñoo ngi koy naqarlu ci fa in lam yastati fa bi lisaanihi ak fa bi qalbihi ndax foofu lañ ca toll la ca des nag ñi nga xam ne ñooy saytu sunu kaaraange di atte sunuy mbir ci saayir fii ci àddina di teg nit ñi ci yoon ñoo ñooñee ñoonu ca mën a dimbali xam ne naqar du weesu nga dégg kàddu gi nit yëkkati ko ci alquran weddil ko yàlla subhanahu wa taala ay waay lu senegaal def yàlla ba tax kàddu yu diise nii ñu koy yëkkati di ko teg ci téereb sunu borom bi te ñu koy def bokk ci réew mi dëkk ci réew mi kenn mën leen fee génne waa jii de daa mel ni li muy màbb bari na lool li muy yàqit bari na lool bu fekkee lii mooy démocratie de yi démocratie baaxut bu fekkee démocratie mooy sañ wax lu la neex l'islam permettrul ab jullit muy def lu ko neex ci aw làmmiñam rek mu wax ko yàlla nañu yàlla musal ci xeeti kàddu yu mel nii ci réew mi tooñ nga jullit ñépp nag tooñ nga ahlul euh, quraan ñépp nag tooñ nga képp koo xam ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah muy nit ku weex ak nit ku ñuul te it xëy na yàgg nga tooñ islaam walla nga tilimal ko waaye kàddu yii de dis na dis goo xam ni boo ci génnee rek ma xam ne jàmbaar nga kon nag man Ousseynou Kane dongab Sëriñ Saalihu Mbàkke bi di kenn ci ay jëwrinam di kenn it ci njabootam maa ngi naqarlu kàddu yi xeetu naqar la boo xam ni dayo ba kenn mënu koo xiyaas ba xam ko ndax metti na lool diis na lool rëy na lool yàlla nañ yàlla mësal ci di dégg xeeti kàddu yi di ñaan kilifa yi autorité yi ñi nga xam ni ñu dimbali nu ci jëmm ji mu waggaral nu téereb sunu borom bi nga xam ni dafa màgg ci ñun mooy dund képp kuy wax ashadu an laa ilaha illa mooy sa dundug ruuxu sënis bi nga xam ni ñu bare ngi def seen kem lay kattan pour jubbanti leen teg leen ci yoon ngeen dimbali nu ci bam damm làmmiñam wi nga xam ni da koy faral ci joyal ci kàddu yoo xam ne dëppwut ak éducation bu rafet bu ngeen nu ci dimbalee day ñu jël ndax ñun amuñu ku dul alquran al karim amuñu ku dul sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na sax amuñu ku ñu baax ñi nga xam ni ñoo nu wéer ci ñoom ñuy dund ci seenu leer lu ne nag nit mën na koo wax ci xeeti yeneen yi yi xew waaye diine moom islaam bun sañoon ngeen waggaral na ko ba yenn kàddu yi nit du ko yëkkati di ko jëme ci alquran al karim bu dee ahmed nga tudd tooñ nga nu tooñ nga képp kuy wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah lii de bëgg bës jëru ko bëgg a ay nombre vie yu bari itam jëru ko ndax la muy yàq ci biir moo ëpp lu mu la mën a defaral ci biti asalaamaaleykum mu tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo